kaaw Ousmane Sonko ak Diomaye kàddu yum ci yëkkati ne amul problème pour génn leen bu fekkee euh, dal ak euh, apaisement bu ñuy wootee daf koy laaj pare na pour ñu ñu ñu ñu génn euh, loolu ba njàngat nga ci def li nga xamante ni wax na ko jëmale ko ci kaaw Ousmane Sonko ak Diomaye mais jaara xam nga wàllum politique. Mhm. adversité la war a doon. Mhm. mais dafa dem ba léegi animosité la doon. Mhm. diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall. te loolu moom mi jiite moom moo waroon am auteur xam Euh, Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa nekk benn phénomène boo xam ne nga bëgg ko nga bañ ko. ñi ko jiitu ci langue politique bi léegi dem nañ ba nangul ko ko dafa am may ak yàlla. dëgg la. xam nga tey jii loolu yàlla daf koy def ci secteur yëpp. Mhm. da ngay nekk ak nit métier nga bokk ak nit classe. yow foo toll yaa ngi révisé foo toll yaa ngi jàng moom bu saa boo xëyee bu fekk si bopp koñ ji muy naan ataaya. boo moytul mu tardé bu devoir jotee mu dagg 18 19 taxaw na li di la xool. Mhm. booy boo xam ne yoonam nekku ngay xam ne kii may ak yàlla yéen yemu leen. don am na ñoo xam ne yàlla moo leen jagleel. Hmm. dañu am may ak yàlla. yow ko leader politique bu ñu fi takkal fii njéel la. ñu jiñ la viol ñu naan ku sell ki yaa ngi comprendre setal la ba nga set setal la <laughs> nit taxaw ne la noonu suñ ko fekkoon sax liñ ko jiñ buñ ko jiñoon man sama rakk sax man sama yoon nekk buñ ko fekkoon sama kaw jabar donc mais nga fay dégg ay kàddu yoo xam ne sax xel mënu koo nagu mais mm-hmm. kooku dafa am may ak yàlla mm-hmm. bu fekkente ne nag nit ki pour ban jàngat bi nga war a def ci moom mooy maa ngi xeex ak moom indi nañ dossier bi njëkk génn mooy force spéciale ñëpp tiit ñu ne noonu ñi dañoo bëggoon taal dëkk bi dañoo bëggoon songu Senelec bi nekk fële dañoo bëggoon def nii dañoo bëggoon def na le ñëpp ñu commencé jàpp nit ñi jàpp jàpp affaire bi affaire bi doy waar metti nga indi dossier boobu teg nga dem election waa ji gën a juddu jëm kanam. Mhm. ñu demaatul nga indi dossier force occulte nga demaat élection waa ji gën a juddu jëm kanam mais nga war a taxaw. Mhm. boo dee kii xalaat nga war a taxaw nga ne non attends man doole ji may utiliser du saafara si. déedéet mais déedéet dañ na ko. bu sa pexe antu xam nga moom moo tax mi ngi toog doon wax noonu mooy leen non ñi mu naan nañ ñëw dialogue ne tey ji seen pexe bu antu woon tey jii kenn du wax Pastef mm-hmm. kenn dootu ko tuddati mais jaara koo xamante ne tëj na leader ba tëj ko soto ba lu lu mu bëggaloon ko ñooñu. seyal parti ba tëj militant yi. seyal parti ba tëj militant bi kooku kooku kooku <laughs> bu pexeem antu woon tey jii dina waxati waxi Pastef xam nga loolu la nga ci jublu su ma seelee parti bi tëj militant yi militant yi dañuy tasaaroo ñi dem taxaw ñi dem pur ñi dem fële ñu ne ah comme tas nañ parti bi léegi amatuñ fi ñu milité militant neen déedéet ex pastef mi ngi fi moo gën a baax sax pastef lañ leen wax mm-hmm. moo mm-hmm. tax ma ne la tey ji képp koo xam ne analyste nga wala ngay jàngalekat Babacar Justin Ndiaye wax na ko neen Ousmane Sonko boo ko ceewee il tient le haut du bu ñu mm-hmm. ko attaqué il a le vent en poupe bu a le vent en am moo nekk ci kaw mais kooku tey ji bu tolloo foofu pour man dafa am benn réponse politique laaj mais doo jël yetu justice doo jël yetu ki yetu ki di ko dóoree. Mhm. boo ko defee xam nga la ngay indi après da ngay créer victime. te xoolal li ma la wax nii dañu dem ba ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye fay nga xamante ne aura bi Ousmane Sonko amoon amu ko commencé nañ di ko créer te suba suba bu Bassirou Diomaye fay génnoon nga xam ci dara. Mhm. commencé nañ di ko kat te Diomaye da da doon jàll ñu ne ah Diomaye ngeen la di dem. mais dem nañ ba tëj ko euh, dugal ko ci benn situation boo xamante ci koo xam dafa bind kese bind kese kese nga bàyyi ko fa ubbi instruction jël yëpp yenn ko dóor ko ci kawam. donc loolu da ngay comprendre que ne tontu bi ñu waroon indil waa Pastef indiluñ leen. Mhm. dañoo jàppoon ne mbir mi jàpp la tëj la moo tax ma ne Abdoulaye Wade moo ko dàq politique. waat dañ doon wax génie politique la. non Wade euh, Wade non Abdou Diouf autant pour moi. parce que Diouf mënoon naa def ni waa ah. Mhm. Diouf mënoon naa jël Wade mais lu mu ko toppee toppee ak lu mu ko tëj tëj. bu génnee jotee da koy génne élection jot mu dem bokk ji defi ji élection. Mhm. mais nag euh, comme ni ñu koy faral di waxee luggukatu jaan jaana koy rey. parce que moom chaque fois moom dafa nekkoon koo xamante ne rek mu opposant yi la daan la daan noggatu da daan noggatu opposant yi mhm. mais yenn nga dajox ko xam ne sa doomu bàjjen lay doon effectivement noonu la mbir mi demee ma moo waral lu tudd turu Ousmane Sonko mhm. moo tax ma ne dafa dafa dafa romb fi mu yegg daf ko yóbbu foo xam ne war foo naa yegg effectivement xam nga tey jii toujours may indi exemple boobu noonu jaara sa njaboot wala sa kër yàlla daf lay dénk xale boo xamante ne daf lay të tëcc et pourtant démb mi ngi doogee xam que la koy doog a xam démb la koy doog xam fu mu mosaan toogee danaan wax naan ni euh, ce stable tant que je mm-hmm. dëkk bi kenn du ko salfaañe. Mm-hmm. waaw tant que maa ngi fi ne xaw ma moo fi jógee nan ay histoire yi nii yooyu du am de dëkk bi kenn du ko yëngal di nappe foo ko fekk rek danaan toog di ñàngal di nappe rek mais a gis ko mu toog nit ñi nag naan waaw il faut ñu waxtaan pardon ak réconciliation rek président jàmm kese la woote <laughs> ma ne gis nga àdduna jaar àdduna ma gudd tànk non non non non blague à part blague à part xoolal Macky Sall bi ak Macky Sall ba mu mu ne ba bu ko posé question da gis bu ñu ko posé question Ousmane Sonko day gêné mais du ci mën dara day gêné mais mais du ci mën dara il faut mu tontu mm-hmm. tontu du tudd tur bi ma ne ko mënoon nga tudd tur bi du la yàqal dara de dañuy xam ne jubóo bi rek gën na ak tam mm-hmm, mm-hmm. kële waaye alal réew mi ku ko jël di nga ko indiwaat loolu leen wax. Mm-hmm. c'est aussi simple que ça ngeen ne ko déedéet ñun yéen comme yéen ay rebelle ngeen comme yéen ay yéen ngeen dañu leen di kase yéen euh, tasaar leen problème am. Mm-hmm. parce dañu fàtte mooy li ma doon wax léegi il y a la main de Dieu là-dedans loxo yàlla dafa nekk ci biir. yenn saa nga gis ko déggoo ñu ne du ñëpp la fexeel mu jàpp leen jaara ba si nit ñi sax dafa am mm-hmm, mm-hmm. yenn saa gis nit koo xam ne da nga koy euh, da naan kii lan mooy secret fekk rek moo koy taxaw woon nañu taxaw di di yàlla moo koy taxaw di xool nag kii Ousmane Sonko mi kii lan la parce que ñoom defe naa ni bi ñu ko euh, euh, jé bi ñu ko mm-hmm. jéemeel pexeel bu ñu ko jéemeel yàlla ne déedéet donc war nañoo taxaw xool nag kii ban façon la ak li mu mel moo tax mu mel lu ñu mel moo tax ma ne xam nga loolu lu ko waral dafa am lu mu bénéficié loo xam ne ñeneen ñi amuñu ko woon mooy dafa ñëw tombel période boo xamante ne Khalifa ak Karim Wade daf leen jaarale ci benn yoon ñu jàll jaar ci bunt ba dem mhm. mais boo jëlee troisième bëgg ko jaarale ci buntu bi dem nit ñi dañ naan attends nga jaar ñi doo ko fa jaarale mhm. bu njëkk mooy sot bi deuxième bi mu indi beneen démarche boo xam ne ñeneen ñi amuñu ko woon xoolal ñu wër parti bi ak ñi ko formé ñëpp visage yu bees doxalin bu bees boo xam ñi xamuñ ko woon léegi les gens dem adhéré si daal di koy jàppale dem mhm. mu doon benn espoir xam nga yaakaar dafa fort nga jékki-jékki ne leen yaakaar bi dootul bokkati xam nga jaay doon ñëpp nankaan kii du bokk ñuy toog si plateau naan Sonko du bokk ku jege Sonko du bokk Sonko du bokk Jomaay du bokk. fekk yàlla ngi ay léegi yéen gis ngay plan yàlla léegi ñoom ñu dem tey ji ba naan Sonko daa war a bokk waaye Jomaay du bokk parce que Sonko lañ gën a wóolu ko Jomaay. loolu foofu laa doon ñëw ak yow jamono ji da ngay dégg euh, euh, da ngay am impression que ni waa Benno wala euh, mouvance présidentielle bi Jomaay mu leen gënal Ousmane Sonko ba tey suñu sañoon boo déggee li ñuy waxee da ngay jàpp ni instant bi ñu toll ni ñu bëgg seen bëgg-bëgg mooy ñu tëggaat. Mm-hmm. maanaam processus électoral bi dooraat bu ko defee bu boobaa ñu génne Ousmane Sonko Ousmane bokkaat mais ci beneen beneen côté bi dangay ngay dégg ñi nga xamante ni ñooy waa Pastef ñoom li ñu wala ñenn ñi ku ci mel ne daam mbocc mën naa ko tudd parce que dem maa ko doon seetaan mi ngi doon xam ne ni président Macky Sall li ko tax a jóg mooy fexe ba tasaare Pastef wala ay euh, waa waa Benno fexe ba tasaare Pastef parce que ñii euh, waa Pastef jàpp nañu élection yi ak lu mën ci xew waruñu salfaañi lu jëm ci constitution bi dañu wax a bàyyi Diomaye mu dem mais euh, ñee dañu bëgg instant bi ñu tëggaat élection yi bu ko defee son Sonko ñëw daal di daal di daal di bokk donc loolu est-ce que bu ñu ko bu ñu bu fekkee luy am la lu ñu bëgg la. est-ce que loolu aussi du indi problème biir Pastef comme benn noonu instant bi nu mu amee problème. xam nga piège la. Mhm. te malheureusement wala heureusement si si si Pastef dañu am chance boo xam ne yeneen partie amuñu ko. am lecture. am am lecture et puis mu am benn ñu am benn leader dañ koo déggal mm-hmm, mm-hmm. xam nga bi ñu demee ba c'était en 98 su ma juumee mooy congrès sans bu parti socialiste yi bi ñu tànnee euh, Ousmane Tanor Dieng bi ko Abdou Diouf tànnee bi mm-hmm. Abdou Diouf tànnee Ousmane Tanor Dieng mais jibo daa mer ber langam Moustapha Niass jaar na la dem yoonam tamit mais fii bi Ousmane Sonko tànnee Diomaye kan moo kan moo ne kan moo moo njëkk daw départ di ko campagnal Birame Sonko du bokk kenn du bokk léegi bu Sonko bokkee ñu ne bu tànnee Jomaay parti bi dina tas parce que yaa ngi doon dégg ñenn ñi naan la non Jomaay du ñoom ñoo moom ci parti bi. Mm-hmm. am na ñoo xam ne Sonko lañ bëgg mu ñëw jamono ji c'est message boo xam ne dañ koy jàllale pour di leen gëmloo ne tey ji naka lañ leen di diviser. su ko defee nga bëgg kenn dagg si langue non non léegi sax nañ fexe ñu défendre ñu démarrer waat euh, processus bi. su ko defee Sonko bokk Jomaay daal di génn parce que ñun mooy suñu leader. mu ne leen déedéet Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy. Sonko waaw mhm. xam nga ku rek mooy fexe nu ñu leen di féewalee. ñii nii ñii xëcc jëmale na le et heureusement ils ñu xam ne lii bu ko defee daf ñuy tasaare beneen mbir bi mooy tey jii buñ ne wóolu bëgguñu jomaay ñëw sonko lañ bëggu mu ñëw man dama naa bëgguñu si benn si ñoom ñaar bëggun ci benn ci ñoom ñaar ñàkk pexe la et su ma nee dama bëgg kii ñëw kii la dugg da leen di chance ñu ñu toggaat mbir mi te bu ñu ko toggaat lan mooy leen wóor ne Sonko dina bokkaat dara moo ma kële ba gis nga Pastef lañu bëggul ku tax ci Pastef logique boobu ba tey lu tax ci Pastef du bokk mm-hmm. parce ñoom ñoo ko tolloole foofu xam nga bañ ba ñu naan jomaay du bokk Sonko du bokk laa ne attention li ñuy def ni c'est très grave mm-hmm. parce dëkk day am ay loi ñu koy teg ci yoon lépp di jaar ci yoon mais su fekkente ni yéen yéenee toog yéen ngeen tànn yéen yéenee toog ngeen def seen bëgg-bëgg li ngeen bëgg mooy am li ngeen bëggul du am. Mhm. ah problème day am de. Mhm. moo tax daan toog naan Sonko du bokk Jomaay du bokk may leen déedéet du nii parce que su boobaa yéen a ngi loo day mel ni yéen fi nekk yéen moom dëkk bi yéen a fi loolu bokk na si tax askan wi mere leen pendant 12 ans dafa dem ba dafa mel nii daanaka ñoom ñoom moom dëkk bi xoolal li ma la wax rek jaara. Mhm. boo faree si ñoom bu la neexee nga saaga opposant maa nga ne dara du la ci fekk. bu la opposant saaga we ñu tëj ko. donc bëri na ay injustice yu am yoo xamante ne dama jàpp ne euh, bokk na ci li waral askan wi mere leen euh, surtout nag moo dem ba jur animosité bi nga xamante ne constaté nañ ko diggante euh, waa waa waa kër nguur gi ak ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef